ma bëggoon déjà massawu 7TV. pour lu mhm. jot a xew. Euh, vraiment euh, dal si euh, Maimouna nduur Faye mi nga xamante ne ñëpp ñu ngi rafet lu liggéey bu am am solo bi nga xamante ne mu ngi koy def ci Sénégal. ñu koy massawu di ñaan yàlla xel yi na na dal. Mhm. parce que Sénégal xamul loolu. lii lu bees la ci Sénégal. Mhm. Sénégal dafay réew boo xamante ne ku ci nekk war daan nañu respecter say opinion. Euh, kon bu ñu yeggee ci moment yu mel nii mhm. war nañoo gën a seetaat lan moo nekk à l'origine euh, ñun ñëpp ñu delloo si suñu xol suñuy xel aussi xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te li tax Sénégal ñuy wax exception sénégalaise mooy la suñu capacité mhm. bi nga xam ne ñëpp xammee nañ ñu ko respecté respecter ak ak yelleef doomu aadama donc ñu ngi koy masaw masaw vraiment toute l'équipe euh, de 7TV mais également la presse mm. dans sa globalité ndax presse kat dafa am solo loolu ci réew mm-hmm. xam naa bu dul woon presse bi tey jii Sénégal fu mu àgg ci wàllum démocratie du fa doon àgg mm-hmm. donc moo tax vraiment dañ leen di jaajëfal seen liggéey métti na euh, mais sachez que ñëpp ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xamante ne euh, les journalistes ñu ngi koy def